mais. mais Séghi Séghi tu eh, essaies de me ressembler ah. j'ai pas ton habit mais c'est pas possible ça c'est tonton ça c'est le. li nga may filmé soluma yére Philippe. Philippe ah. li nga may filmé yoruma yére. Philippe yore yére Saint-Louis yore yére man maa ngi. Eh, mais Saint-Louis ah. doon fees xaru sama famille bi ah ñu may filmé. nii nii yaa doon fees xaru. ah yaa ko def ah. ah mais booy sama lunette yi ngay jéem a nduróol bokkul. un peu bokkul ndax sa bos yi. c'est man sama bos yi booy booy masque booy je sais pas foo La diva de Boubacar kii kan la Petit Mac mais Petit Mac yow lii lii nga devenir léegi. Petit Mac léegi nii nga mel. Khadija yow bëggoo ko ah, ah, am sens la baal leen ñu wax ngi baal ñëpp àq yàlla nañ ko fekkee ay déwén yi déwén yi déwén te mbas mi nga xam ne ko moo ñu sonal depuis presque léegi ñaari at yàlla jëlee ko fi nañu def attention rek te bu vaccin yi ñëwee na ñëpp dem vacciné ba pare ñu takk seen masque